jotaay bi yëpp di ci jiital kilifa yi nga xam ne ñoo teew fii Cheikh Seydil Arabi mu suñ bàyyi xaaj Mouhamad Zeynab présenté nañ ko waaye mu ngi nii toog euh, imaam Cheikh Mahi Cissé moom itam mu ngi nii toog ak yeneen doom yeeg jarbaat yi yëpp nga xam ne teew nañ fii tey xam ne seen teewaay ci période su gàmmu gi dafay dolli yaakaar ci ñaan yi nga xam ne ay doom yu baax ñoo koy defal seen waajur wu baax moo tax daanaka kalima bi kalimat ndokkeelante rek la ndokkeel nit ñi ci gàmmu gi nga xam ne eh, dajale na àddina bi tey fii ci Medina. di ndokkeel itam waa Medina di ndokkeel ñi ci def lu baax yépp te ñu ngi koy dégg ñu ngi koy gis loolu it xususi la boo xam ne yàllaa ko may ñi nga xam ne ñooy def loolu dafa am ñaari kilifa yu nekkoon ci gouvernement bale génn daje keroog suma kër ñuy waxtaan mën a leen yéen jaroon ngeen di jaaxle gis nga seen doom yi toog du ñàkk ci àddina bi duñ tiit waxuma yéen du lu ngeen liggéey nag waaye lu seen bàyyi liggéey la te période bi ñuy liggéeyal bàyyi loolu boobu lu jafe woon te bàyyi moo ne inna alladina xadamu ni naalu muraadahum saadatan waalu te jamono boobu ñuy jaayanteeg bàyyi ci liggéey yàlla leen ko mayoon rek nam mayewoon Seydina Ousmane gannaaw ñetti fan yi yonantu or ba ngoon amul lu mu dogee mu continuer koor gi ba muy ñetti fan Seyda Aïcha moo sàcc oo benn nit mag u gone yónni ko ci Ousmane ne ko demal ne Seydina Ousmane yonante ngi ci ñetteeli yi or bu dog jotee doo am lu mu lekk Seydina Ousmane jël gilem sëf ci seen uh, yàpp yooyu ñu daan weer muy tistaan sëf ci blé sëf ci lu nekk lu ne mu def ci gilem yónnee ko kër yonent bi ma ne leen Ousmane bi muy def loolu yàlla mayoon yonent bi moo gënoon a yomb ci moom mu may Ousmane parce que yonent bee ko gënal Ousmane mais Ousmane la doon dimbale pour mu def ci yàlla moo tax mu jaarale voie bi foofu yéen seen bàyyi jaayante nañ ak bàyyi bu yàgg ci jamono bu jafe ñaq yooyu ñu doon ñaq dana leen topp dana topp seen doom dana topp seeni i sët jarul sax ngeen di jaaxle ci ci àddina bi eh, kon ñi ngi ndokkeel ñi ñëw ci gàmmu gi yépp di ñaan yàlla ñi egsi ci jàmm yal na leen fi yàlla sàmm nangul leen seen yéene bi ñuy jóg di ñëw parce que am na réew yoo xam ne jënd fa billet pour ñëw Dakar ren lu jafe la ci con euh, addina bi fi mu toll léegi ñooñu ñëw nag yal na leen yàlla may seen càkkutéef may leen sax lu ëpp seen càkkutéef sàmm leen ci Medina sàmm waa Medina itam ci gan yi ñëw parce que lu nekk mën na am ni ñuy ñëwee di indiwaale dara loolu la ñëwee indi leneen itam waaye yal na yàlla sàmm ñi dëkk ci dëkk bi ci li fiy ñëw yëpp ak luñ mën a àndat ba nga xam ne dara du leen ci dal dara du leen ci fekk di gërëm mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi bokk Mame Baye mii mais nekk ay xaritam mu décidé moom ak ay rakam pour ñaanal yaayam ñoom ñëpp ñu ñëw fekkee la si ko loolu dafay dolli yaakaar ci ñaan gi ñuy def parce que ay nit ñu sell lañ jógee ci ay nit ñu sell ñii ci wasifa lañ jógee ñëw ci jotaay bi ñii ci julli ngee lañ jógee ñëw ci jotaay bi loolu yëpp nag buñ ko booleeg juróom-ñaar fukki xatma alquran yi ñu def amuñ sikk ne yéene biñ buggoon ci ñaanal seen yaay Eh, dana ci jot ñu ngi leen di ñaanal ñoom itam eh, si di wax na léegi ne seen yaay ku dëddu woon àddina la te muy dëgg waaye ñu ngi leen di ñaanal ñoom itam liñ bëgg ci àddina bi yépp yàlla may leen ko Cheikh mu Baye Mbaye mos nañ di waxtaan mu ne moom dafa soboon rek poser Baye benn question ne bàyyi na ko dañoo wax ne ñun amuñ wërsëg bàyyi na ko ko wax loolu ah mu ne ko am na ñu koy wax de mun ne ko déedéet suñuy maam suñuy bàyyi ñoo itteewutoon loolu waaye yéen ñii ku ci itteel wërsëg da nga ko am euh, kon loolu xaj na àddina soppeeku na ba fi mu nekk nii na mag ñi daan dawee wërsëg ak alal mën na am boo amee wilaayatu sax te amoo ñaar dërëm su nekk nii pour wilaayatu gi mën nekk lu nit ñi nangu dana jafe kon nag li ñuy ñaan rek mooy yàlla ak lu mu fi mën a sot sotti ci wërsëg mu tënk ñi ci li nga xam ne ci la tënkoon suñuy bàyyi tënk ci suñuy maam eh, métti na nag période bi jàll nii yëpp wax naa ko démb ci conférence bu benn conseil bu fa ñëwoon bu premier ministre Ousmane Sonko mu taalibe Baay la ma ne ko nag Sénégal toujours dañuy raté rendez-vous cinquième président Sénégal tànnagum na leen muy Abdou Diouf Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall ak président Diomaye bii topp waaye à chaque rendez dañuy raté pour xam kan mooy Cheikh Ibrahim waxuma en tant que sëriñ mais kan mooy Cheikh Ibrahim pour mën leen a dimbale ñoom ci seen liggéey ma Nkrumah dootoon jullit 63 bi ñuy taxawal OUA ma dafa ñaan bàyyi ne ko dañ laa bëgg a invité nga préparer benn discours andi ko ci wax al ifriqiya su sommet bi jeexee discours boobu danañ ko traduire ci langue africaine yépp Hausa Yoruba Igbo nangam nangam Senghor ne du fi am parce que réew mu nekk benn président fa jógee Sénégal ñaari président duñ fi jógee kaddu Sénégal man maa ko amee kurma daal di ree ne ko yàq nga chance boo xam ne du yàgg dara ci kanam Afrique dana ko rëcc ma ne leen loolu ba léegi at mu jot rek ngeen rëccu ko wala cinq ans yu jot bu ñu keneen rek ngeen raté loolu te bàyyi ku leen mën a dimbale la ci situation yii Afrique nekk. président Diomaye moom lañ chargé mission pour mu dox diggante CEDEAO ak as mooy ñetti réew yi génn ci CEDEAO muy Mali. Burkina ak Niger waa Diomaye moom pour mu dox mission boobu bu ci boole woon ñenn ci waa kër gi rek mën na ko faciliter tâche boobu ba nga xam ne politiquement moom du ko du ko yëg sax même euh, nu mu tuddati euh, réseaux sociaux yi attaques yi ñu koy def yëpp du ko jar parce que dafa am lu ñuy wax diplomatie populaire mooy ay diplomate yoo xam ne nekkuñ ci biir état mais état daf leen di utiliser loolu Sénégal rek laa gis ne duñuy jëriñoo genre diplomatie boobu. xanaa ko boo demee waxal ak sa mbokk yi nga ne leen Baye Niass mën na leen a dimbale na ko doon defee démb mën na ko tey Kabir fay mos nañu nettali am na Cheikh Sidi Arab mi dana am information boobu Senghor dafa jàmbat Baye. ne ko am na benn parti ci senegal dañ ko tayle woon te créance bi jot na buñ ko fayut Sénégal dafay perte suuf soosu yépp bàyyi na ko suba ci diggante timis ak gée na nga yónni ay ndaw ci man ñu yónni leen ñu ñëw Kabir Faye mu ne ñoom la bàyyi wax rek ne leen dugg leen ci néeg gi mooy fi ñu daan def kees yi pomom yooyu ak orange yi dem leen ngeen indi kees yi nekk foofu ñiy roñ kees yi di génne rek ba am kenn ku sàcc xool kees yi nekk kes yi yëpp dollar la def te ñoom ñu ne yëguñ kañ la fa dugg loolu la yëkkati teg ko ci loxo Senghor pour ñuy sauver créance boobu nga xam ne bu amutoon Sénégal dana perte parti boobu euh, du politique nag parce que kenn du wax ne soxla moo suma état waaye état bi itam na jàng Sénégal na jàng Médina na jàng Baye na jàng ñi fi nekk. bu leen déglu ci renseignement yi parce que renseignement yi amuñ sikki na li ñuy wax ci yenn kër yi dana gën li ñuy wax ci yeneen kër yi mais boole buggee jëflanteeg ñoom jàng leen ñoom directement yow ak ñoom su boobaa da xam ndax ñii mën naa leen jëriñu ci intérêt Sénégal mën naa leen jëriñu ci intérêt. Afrique te yaakaar naa ne loolu mën na nekk jël na not dana ko jotal du ko jotal de toute façon liñ ko waroon wax euh, wax nañ ko kon ñi ngi gërëm mbooloo mi teew fii yépp ci teewaay biñ teew fii ku participer ci kaamil yi alhamdulilah ku fi jàng benn fatiha itam alhamdulilah di ñaan yàlla yàlla jotal liñ fi jàng noonu yépp ak liñ fi ñaan yépp ci benn xale yi yàlla jotal ko seen yaay muy sayda ay Sarr eh, li mu ragaloon nag ci àddina bi ba dëdd ko eh, yàlla na ko ubbi ci gone yi te duñ sànku bàyyi daan na wax ne fii ba ba ñuy dajee ak yonant bi gisuma fi ñàkk waaye dama ragal bew loolu répété na ko ba sonn mag ñaa ngi fi toog gisuma fi ñàkk mais dama ragal bew te loolu dafay am léegi bi may ñëw dafa am benn xale ci xale yi nga xam ne du benn classe bi sax ci Medina dañ daje ci kaw yoon bi wetu kër aadi oto bi dafa xaw a yaatu xaju moom mu amee jakarta bugg a jàll na seet na seet xamut fu muy jàll mu dóor oto bi moo ubbi bunt bi wàcc ne ku dóor oto bi yow mu ne ma déedéet ma ne ko loo ciy fen yow bi ngay dóor maa ngi lay gis waa xam nga loolu genre bew la yow ci dëkk bi nga dëkk waaye même bu doon oto benn nit la sax loo koy loo koy dóore parce que yow yàkkamti nga rek pour dem kon yàlla nañu yàlla sàmm sàmm suñu pas-pas yi sàmm dëkk bi sàmm ñi jublu dëkk bi sàmm ñi am yéene pour ñëw fii ci dëkk bi yàlla may leen li nga xam ne éene nañ ko pour am ko fii ci dëkk bi itam yàlla may leen ko suñ mbokk yi nekk ci fitna ci àddina bi benn soudané oona ma di ma wax yoon bi ñuy mën a jaar ñoom pour gàmmu si man dem naa ba ne leen sax yéen te ngeen a toog ngeen jàng ay salaatul fatiha ak yooyu àdd yàlla ko bàyyi muy seen gàmm parce que Éthiopie dafa tëj seen frontière bi te Éthiopie rek lañ mën a jëlee ji avion dañuy obligé jaar ci suuf ci montagne yi jaar érythrée yi jaar foo xam ne euh, waxuma sax seeraayu billet bi mais fii ñu war a jaar pour egg si Addis am na ñoo xam ne sax bala ñoo egsi gàmmu gi paas te loolu fitna bi nekk Soudan rek moo ko indi na ñaanaale ci jotaay yi ci kaamil yi ci aine yi yàlla jeexal fitna boobu fitna bi nekk ci Moyen-Orient itam muy Charq al diggante Israël ak yenn ci arab yi comme Liban comme Hezbollah comme Hamas ak digganteem seen diggante ak Iran yooyu yëpp erreur mën na ci am mu taal fitna boo xam ne àddina bi yëpp dinañ ko yëg comme ñun amuñ dara lu dul ñaan nañ boole ci suñ ñaan yàlla fay fitna yooyu bi nekk Libye yàlla na ko fay bi nekk Syria yàlla na ko fay bi nekk fii ci Mali Burkina Niger parce que fépp am nañ fa njaboot fitne yi ñu fa taal par erreur nañ ñaan yàlla ci guddi yi ñu toll amuñ sikki yàlla du ci delloo ñaan yàlla jeexal fitne yooyu may ñi itam Afrique mën a dajaloo ni nga xam ne noonu la ko bàyyi buggee woon tubaab yi duñ ko nangu waaye xeex ak ñoom rek lay laaj xeex bi itam du xeexi arme xeexi xam-xam lay doon Paul Kagame bi muy génn ci langue française étudier na ko lu dem ci douze ans conséquences yëpp diggante Rwanda ak France xool na ko ba xam ne mën naa nekk dafa xëy rek tappaas francais yi ne moom léegi ci Commonwealth la bokk mooy pays yi làkk anglais bokkatut ci ci francophonie te pourtant réussir na ko e, pëppalam dimbale ko itam fal nañ ko ba 2037 kooku amul problème yi dem élection ak yu ma xamut yi Euh, ñu ngi gërëm ñi fi teew ñëpp di gërëm kilifa yi teew fii ak kilifa yi nekk ci kër yi ñoom ñëpp ku ci am tawat yàlla na ko yàlla saafara ku ci am soxla yàlla na ko yàlla faj ku ci am jaaxle yàlla na ko yàlla dindi ci barke yonent bi Cheikh Sidil Arabi ngi ni Cheikh Mahi mi nga xam ne moo amee intérim bi remplacé magam Cheikh Tidiane Cissé moom it yàlla na ko yàlla dimbale ci mission boobu ni mu ci dimbale woon seen mag Xasan ak seen baay Seydi Ali Cissé ñi ngi ñaan yàlla yàlla dajale xoli dëkk bi bañ mën a jublu ci projet yoo xam ne projet yu mag yu bàyyi lay nekk mbooloo mi fi mu ne foo leen natt àgg na fa YouTube bi ñu ngi ci gis ñi nga xam ne ñi nga xamante ba di génne ay wax mane ne leen wax yi du ñii ñoo xamante mais ñun ñoo def faux pas ci li ñu waroon organisé woo. gis naa benn xale sax mu ne taalibe bàyyi la xaw ma nu mu tudd xale yi seetaan nañ ko ci YouTube muy wax ci tribune ci mbaar mi tribune bi ne kër yi Sénégal yëpp ñu ngi tabaxal seen bàyyi ay jumaa yu mag. yen ngeen di tabaxal seen baay mbaar ma ne ko yow da nga dof baay bi muy tabax jumaa ji kër yooyu zaaw sox nekku ko moom def na li ko war fi mu ne ñun ñoo war a def li ñu war yal nañu yàlla dimbale bañ man loolu yëpp ci zahir ak ci baasan ci maal ak ci sécurité ak lépp asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu